yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman biqira taacaati wassadadi معزما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ماحي أو زار وقاضي أو طار وتارد أخيار من الخلد وسافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالسبد ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفدة يا مذهب النكد وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم من نافع الزيد يا شهر رب الكريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني uhibbuka hubba zaati za talabin min maliki fiika isaadan bila awadi za tawbatin fiika aydan maadiyan abadan bizikri wa sukri wal qur'ani nil ahadi ilayhi qad tubtu fi sha'ban ar rajabin mujaddidan fiika fashhadni bi tarki dadi lishhad bi axdi كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غس فآلا وترحيبا بلا عدد inni uhibbuka ya shahra siyaam bila ghishin fa ahlan wa tarhiban bila adadin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu mbokki sunu info mbokki téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent sallallahu wa sallam ñoo di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi te wér di bi yàgg fi loolu te wér waaw li nga laaj muy sababu màggal gi màggal gi li sabab moo bis bii ci juróom fan ci weeri koor ki nga xam ne mooy mooy mooy suñu bunt moo ñu dimbali sëñ Tuubaa moo ñu dimbali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu dimbali ci diine muy Cheikh Souhaïbou Mbacké di xaadimul Qur'aanul Karim bis bii ci a gën a jamono moo tax ñu koy fàttaliku di ko def suñu mbégte li ñuy wax li tubaab bi wax Noël mooy suñu bonne nouvelle bi yàlla jox muy sëñ Souhaïbou Mbacké ci la gën a jamono ñu koy fàttaliku bis boobu di ko ci ñaanal di ko ci jàngal ay xasida def ay saatu ala di ci fàttaliku ay jëfam yu baax ba képp ku baax déggul baax mën cee roy mooy saw bis bi. Serigne Souhaïbou jaamu bi yàlla la woon bu ko bu ko nangu woon te daan ko jaamu taalib Serigne Touba la woon bu nangul ak taalib te daan ko dundal daana jaamu yàlla daan jaamu yàlla la woon tamit yëmutoon ci jaamu yàlla waaye da daan liggéey yàlla ci jaamu yàlla yi da daan fekk xale boo xam ne xamagul dara am juróom-ñaari at xamagul dara dara nekku ci boppam mu def ci moom xam-xam def ci moom ab yar def ci moom ay teggin def ci moom alxuraan ba fu nekk dañ koy dimbali waaye day dimbali waaye kenn du ko dimbali. daan di fekk di ko xam ne nit nit nit koo xam ne dara nekkul ci moom mu def ko insaanu kaamil maanaam am parfait la daan def nit nit ko complet la daan tabax kooku mooy Cheikh Souhaïbou doomu Sëriñ Tuubaa yëpp nag nekkoon nañ ci lu baax kenn ko ne am na tool boo doon béyee Sëriñ boo doon béyalee Sëriñ Tuubaa waaye moom daa jël alxuraan roof si goppam def ko muy tool boo xam ci lay liggéeyee Sëriñ Tuubaa muy muy boo xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko suñ suñu borom moo ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sëñ Tuubaa doon waat ko ci moom moom mu nag mu jël tool boobu di ci béyal sëñ Tuubaa bañ mu boy muy toolu alxuraan ak yar ak yàgg kooku mooy Cheikh Son yàq-yàq jamono yi buñ ci bëggee mucc lépp crise de valeur la te buñ ko buñ ci bëggee mucc dañ delluwaat ci njàngalam suñu son bi ndax lépp waxoon na ko daan dem ba waxuma na réseaux yooyu waaye télévision rajo yi sax daana ko moytoo loo nit ñi daana ko moytoo loo nit ñi daan bëgg ci nit déwu toog loxoy kese waaye lépp loo gis nii rek ak am jot la nit ñi am jot. boobu boo ko si message yéen boo bañ am wax la daal da nga yor course daa nga yor kaamil daa nga yor toog di buub musul bëgg toog loxo kese nit ñi nag li leen yar daal fi toll nii ñàkk crise de valeur rek la rek la dañ leen yarul ci ñàkk toog loxo kese nit nag bu wujjee dana wut dana wut lu ko occupé waaw bu ñu delluwaatee si ñàkkalem nag yaakaar naa duñ juum si waxuma la Séné waxuma la Sénégal wala àddina bépp man man nañ ca sowe